ay gi na mbàkke Cheikh Fallo fam nga jumaa ji xàll yoonu mbàkke sengul daagul dugal tariixu laay alaaji Fallo yaay rasulullaay jam nga fa Makka fam nga ni laay alaaji Fallu yaa juboog li laay am nga ngeen li yàlla hubbu fam nga ngeen li Bàmba hamdulaay sariyatu haqiqatul iman alaaji Fallu yaay borom kéemaan sëriñ Modou Boussa Dieng sëriñ Modou Boussa Dieng sëriñ Modou Boussa Dieng bay baa def xalifa di moom xarnu bee Tuuba tabax jumaa ji alaaji Fallu mooy xalifa moom yoonu Makka new leen néew fa moo bi yoonu Makka ak Madina ay million sappee moo bi yoonu Makka ak Madina Alaaji Baara saana diina yaab siyaare Amadul Makkiyu dellu siyaare Amadul Makkiyu dellu siyaare waa Baqiya xabru Tayiba siyaare kër njool Makka xam nga barba Seex Fallu añ na fa Makka sànni jamra fon doj wa dem Arafat dellu umra dem na Safaa dem ma tama dalli fa taxaw makaama dem mi nan langale fa Seex julli jumaa nan ca biir Samsam kaaya waa Makkata yaa bari ndam yaa am jaloore ak ndam ma tiital mu ne su la ngañati suukar ma sa bari jël na ndam la Bamba ni fallu laay fallum yàlla alaaji Mbàkke bu sey ni jaayam Bamba di baayam fallu di jaaram yaa jara way yaa jara joxi daaya yaa jara jaamum yaay borom kon bismillah teema jóg way fi jilin seewey ñoo ma boppam soxna jaara soxna jaara soxna jaara moo di dey ba mi desi di feeñaat teeram wa de foofu ndaw soxna jaara bu jigéen kon mi neefi tey duñu bew waayu nga te waayu nga te forox nga te foof nga jëlu ma pita sellal jaara bu defan sukk ak cuune duñu wan ki ñuulu dolli da xëju cim nen soxna jaara la ñuulu masla julli te jàppul masla julli te wildul doole kay sangam tuubal